docteur Seydina Oumar Seye maa ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. voilà docteur Seydina Oumar euh, Seye nga nekk économiste sa xam-xam màcc ci wàllum koom-koom Fonds monétaire international daal di déclarer ne croissance bu Sénégal ba léegi baax na même bu fekkente ni sax euh, euh, nekkul woon fa mu nekkoon avant crise Covid 19 ak tamit différentes crises yi nga xam ne am na ci réew mi en tant que économiste naka nga gisee déclaration bu Fonds monétaire international. waaw en fait euh, Fonds monétaire international day basé ci ay xayma après mu jàngat sa économie ni ñu ko yoree ni mu demee en comparaison avec d' autres yoo xamante ne ci benn contexte wala environnement bi ñuy nekk bu complexe nga xamante ni croissance su Sénégal li ñuy xayma maanaam richesse bu ñu xaymaa tey ay richesse yoo xam te ni mën na law teq ñëpp dañoo gis ni dafa ralentir en deux mille mais contexte bi ko caractériser c'est à des fortes pressions inflationnistes mooy tey jii bi nga xamante ni Ukraine dafa attaqué dañ ko attaqué guerre boobu tey jii dafa indi di naan inflation importée mu feeñ ci njëg yi loolu état bi day obligé di continuer def ay subventions yi nga xamante ni pour gérer tout ce qui est la dimension socio-économique donc ça c'est le rôle de l'État c'est sa mais am na tamit yeneen yi nga jiitu mooy yi nga xamante mooy crise mooy suñu économie elle est résiliente malgré tout teg nañ ay pexe am nañ benn cadrage macroéconomique boo xamante ne donte amuñu taux de croissance am waaye ba tey nekkuñu ci situation yoo xamante ne dañuy am benn banqueroute wala état bi dootul mën a fay wala dem mais toujours est-il que war nañoo mën a romb ni am nañ ko parce que potentiel de croissance am malgré na nu mu doon yaxaane am na nu mu doon xayma am na lu mu doon te ni moom lañ doon def pexe orienté ko ci tey jii suñu budget suñu ressources yi wala li nga xamante ni moom la ñuy yoreen bi ci seer la ci corruption lépp mën nañu dépassé ci fi mi bu lay jox note toujours danaan la waaw lii baax na seen économie certes c'est une économie résiliente une économie boo xam ne ndërmelu la loolu dëgg la kenn mënu ko tekki mais ñun Sénégal loolu tax ñuy jóg parce que autorités yi avec l'avènement de Macky Sall waratuñoo nekk ci ah ñun am nañ moyen bopp élève bi dañu war a dem ci ñuy wax notre excellence yi mooy aller vers des croissances pro peuple am tuuru croissance yoo xamante ni bañ a bi bu ñuy wax chiffre bu nekk di jooy ci marché bi ni mu demee ci yokk ñi dem ci ay taux de mais ñu bari excuse bi ñu jox mooy inflation bi mooy njëg yi yokk li nga xam ne di ko di les perturbations seen logistique à travers conflit bi am Ukraine ak avant crise Covid 19 parce que avant yooyu ñëw Sénégal mu ngi ci woon benn trajectoire boo xamante ni de manière consécutive chaque année dinañ yokk en un en presque deux points de croissance loolu bu taggul woon di continuer day nekk récession yoo xamante ne dana dem ba law teq ñëpp dinañ am industrie dina mën a transformer dina mën a absorber de la main d'œuvre di nga fexe géej gi mbay mi lépp ñoom tissu industriel bi wala même le secteur informel di nga mën a téye xale yi jeunes yi ak benn espoir boobu xam ne du tax ñu dem ci géej gi ci kaw loolu ci note IFM yi ñoom dañu ñoom dugg ci dugg muy côté politique mais ñun ñii di analyser li IFM yi mënul wax parce que du rôlam mooy tey dafa am benn volonté politique boo xamante ni am nañ benn potentiel économique en terme de taux de croissance notre potentiel de croissance jigéen wuñ ko am na yenn pexe wala doxal yi nga xam ne bu ñu ko defoon dëgg tey benn xale bi ci jéggaani di dem donc loolu war nañu am benn discours pédagogique ndaw yi di ñëw instant yi metti na waaye fii ak ay at suñu pétrole suñu gaz dana commencé nañu serré seen diir nous les ménages parents yi ñëpp ñu xam ni fii juróomi at bu ñu dépassé zone de turbulence yi Sénégal dina nekk dëkk boo xamante ne ndaw bi bu bëggee am am na fu muy dem ci lu correct ci lu légal lu lew mu dem fa daan dooleem ñàkk wala xam-xamam daal di am loolu da nga ko war a jaay muy ree par rapport à notre potentiel économique par rapport à notre potentiel de croissance ci fi ñu da lay junj loolu bu ñu defee woon nii bu ñu defee da koy junj rek. mais loolu xam nañ ko ñeneen ñi ngi koy wax xam nañ ko bu ñu yam rek ci notre économie wala suñu taux de croissance yi on est résilient am nañ taux boo xamante ni tey jii kat bi dëkk ba de daanoo deful lee ñun on est le Sénégal ñun on nous a vendu l'émergence dëkk boo xamante ne dañu war a dem ñu yëkkale ci dëkk yu mag potentiel mu ngi fi muy le pétrole et le gaz mu ngi ñëw am nu nañu joxe excuse bi lu tax taux yi parce que démarré guñ seen pétrole ak gaz avant ñu koy démarré war nañu mën a am diversification yi transformation de tout ce qui est notre économie aller vers l'industrialisation pour absorber cette main parce que loolu rek moo ñuy permettre ñoom classe moyenne boo xamante ni tey jii dina dëgër ba kenn dootul jiggaani di dem faneen non seulement sénégalais yi mais dañ rek si ñuy jóge ci sous région di dem donc y a une volonté politique boo xamante ne mu ngi fii bu ñu war a def malgré pluie pluviométrique ou défavorable défavorable malgré ralentissement économique global comme ni ma ko wax waxoon lii ak xew-xew yi am ci àdduna yépp tey loolu certes ralentir nañu waaye excuse bu fekkee def nan li ñu war a def ci orientation en terme de budget en terme du politiquement correct loolu bu ci autorité yi jëmbalee Sénégal war na nekk Sénégal boo xamante ni li ñu tënk ci PSE war nañu yegg foofu ci kàddu mais noonu ñu ko waxee jëmbale ko bu ñu ko doxee foofu lañ war a jëm ci yoon boobu lañ war a def nag ginnaaw loolu effet la ah, selon le cadrage macroéconomique selon orientation selon tel bu ñu xoole critères yi remplir le critère yi économie bi elle est résiliente loolu c'est indéniable kenn mënu ko teggi ah. il faut pas ñu dugg ci ay contingence politique par fii wala tel économie bi résiliente la na du Sénégal mais mënuñoo tënk foofu ndax suñu potentiel war nañoo mën a dem ci loo xamante ne ci dëkk bi ñu naan ah dëkk bi métti na métti na boo xamante ne bu nee def nañ croissance kee mooy accord mooy le fait que askan wi ñu bëri dañuy dégg croissance te moment boobu ñoom ñu ngi daal di euh, souffrir mais Seydina Oumar Seye le fait que état bi kon euh, nar a retirer euh, nànk-nànk wàllum subvention bi si électricité bi si wàllum énergie bi donc loolu ça veut dire que. facture courant yu cher yi ñuy yi ñuy jàmbat nii dafay jëm kanam dina dem est-ce que ba askan wi dootuñ ko mën a àttan. waaw en quelque sorte su continuer loolu lay def mais xam nga état rôlam état état du def loolu parce que dafa am ay conséquences socio-économiques politiques yoo xamante ni c'est incalculable mais tamit tey jii li naan subvention mooy état mu ngi jël ci moomeelam daal di xool kat euh, madame Moreau wala Moustapha Abdou wala Jacques Jean benn sénégalais boo xamante ni mu waroon moom mu teg ci njëg gi Sénégal bi daal di fay juróom moom mu dolli ci ay juróomam kon xaalis la bu muy jëlee fenn mais bu demee ba amatul loolu muy jëlee foofu ñu yokkal fële Moro chaque cent wala Sénégal bi day nekk problème léegi fu mu la daan dolli lu juróom dootu ko man day fexe léegi di dolli ñaar yow nga góorgóor la weer dolli ñaar parce que conjoncture bii ñu wax à travers le monde nekk na foo xamante ne il y a l'incertitude pour nga am xaalis fenn pou def perfusion financière jox leen ñu doxal lii en attendant ñuy ñëw suñu pétrole ak gaz dinañ leen mën a fay léegi pour lever de l'argent à travers le monde incertitude la parce que ki lay jox xamul suba ni muy demee te la nous en préserve troisième guerre mondiale mën naa am Covid mën naa am léppay xaar ku la leboon wala ku la amee doon wóorutul mu fay la donc looloo tax léegi am xaalis teew teew ngir état lépp a jam pour mu am ko def li mu war a def day day nekk na fay fonctionnaire yi war naa ubbi université na fay Euh, bourse étudiants yi war na gérer l'hôpital bi war na def tout ce qui service public xaalis moo koy def bu ci bëggee dolli yéen yi nga xamante ne li mu am bëgg continuer di subventionné di lebi ci FMI yi FMI danaan ko non il faut dire la vérité aux populations ki nga daan dollee juróom mënatoo dolli juróom di nga gis ñoo xamante ni les tranches sociales foofu lay insister benn ménage Moustapha Abdou boo xamante ni këram lampe frigo ventilo fari kooku du a continuer di ko parce que loolu état moo ko war a gérer à travers les prestations sociales mais borom doole yam ay entreprise ay industriels ñoo xam na dañuy gagné ay milliards foofu di subvention bi ko war a lever totalement et carrément te ñooñu ñoo gën a lekk fracture énergétique yi xew Sénégal li ñuy consommer li ñuy ngembal ci xaalisu Sénégal foofu la bare c'est là où il faudra vraiment poser et poser point de foofu ci ñi nga xamante ni tey jii ñu war a demee ci électricité bi muy jural Sénélec une entreprise qui n'est pas performante financièrement économiquement ba état di ci engloutir des sommes colossales du ay kër yi ñuy taal ay lampe ak ak bâtiment énergie bi li ñu gën a sonal c' est tout ce qui est c'est industriel c' est tout ce qui est ce qui font à des pratiques mercantilistes foofu la ñu a creuser état bi tekki totalement la subvention et à des ménages même bu mënatu ko dolli juróom di subventionné nga continuer di dolli ñaar tout en donnant une explication pédagogique Sénégal foog ñu ces générations actuelles ces relations yi ñafe de turbulence parce que demee nu tuuti fii Sénégal dootuñu xam facture électricité ak ndox gratuit parce que loolu man na ne dafa am benn moment donné boo xamante ni il faut consentir des sacrifices il faut aller vers ces assainissement bi vous ne pouvez pas demander ça tamit population yi pendant que ñu ni pratique yi laneen la gis anek boobaa ba am adhésion mais c'est dans la pédagogie qu'il faut expliquer cela aux Sénégalais parce que la subvention à outrance totalement et carrément mënutu la nekk maintenant dinañ yi mais pour tous ceux qui sont à des fins d'utilisation mercantiliste de l'énergie état da ci génne subvention bi affiché leen la. léegi docteur loolu la leen FMI di junj. Mm-hmm. dernière question moom mooy est-ce que aussi da ngay dëggal li Fonds monétaire international wax ni euh, retardu exploitation wu hydrocarbures yi na si li plombé un peu la croissance initialement bi ñu prévoiroon à dix virgule six pour cent. ah mais bien sûr loolu moom amul werante kooku soxlawul soxlawul nekk économiste pour xam ko parce que le potentiel en termes de rentrée de contribution économique à des fins de points de croissance. quand on bu ñuy exploiter suñu pétrole ak gaz li ñuy dugal loolu lu leer la suñ ko amoon léegi léegi nga gis ni état bu ko neexoon ni facture yi Sénégal léegi du maa leen gàddul kenn du fay dox ak courant lan ci war a am bu ñëwee ñu gérer ko mu war a gérer c'est normal mais est-ce que la que démarrer guñ suñ pétrole ak même bu ñu dugg dix mais ñu atteindre suñ que avant quatre cinq six sept waxaguñ woon waxi pétrole ñu ngi fa doon yegg te pourtant amaguñ woon pétrole. donc li lay fi muy julli foofu mooy li ma lay wax diplomatie la politiquement correcte la ah c'est vrai que Sénégal yéen leen économie bu dynamique ngeen kenn mënu ko teggi loolu am la waaye bu ñu góorgóorloo ci doxalin bi ci orientation yi ci jëfin bi ci yenn yi di ngeen delluwaat fee en attendant bu pétrole ak gaz ñëwee waxatum waxi ay six sept huit mais daanaka di nga am croissance bii tax bu neen def na pour cent kenn dootu euh, en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci leeral yi. ah merci c'est moi. ñuy fàttali docteur Seydina Oumar Seye la maanaam xam-xamam dafa màcc ci wàllum koom-koom.